Mamady di ñëw jël na tànk ba Mamady jël na tànk ba da koy daan Mamady Ndiaye Petit Lo Mamady wàcc na Petit Lo Mamady Ndiaye Petit Lo Mamady Ndiaye Mamady Ndiaye à ba doj na ko doj na ko seddoo laay giite laay naka ko waaw naka Mamadi Ndiaye Petit Lo agogo maa ngi ñëw bàyyi yàlla bu ma <laughs> na Mamadi Ndiaye Thank you. gaay bi yow am nga boo bëree de boo amee ci ci boobu gaay ñu bari ñu bëri séeréer toujours da lay fàqal bëri séeréer am gàllaaj am doole yooyu yëpp ay wax la rek yooyu yëpp gopp gopp entraîné gis nga boo amul doole boo amul doole dama ko toog fële ndax nekkul ñëpp lañ mën a jàpp booy bi dafa muus de. yeewu la def. ba muus de. loo koy loolu. sànq dama ko bëggoon prise. mu njëkkantuma moom prise. oh moo la prise. moom laa doon waajal pour def mu def la ko. non moo tax man mi ngi doon bu bàyyi. non bu ma kaatoo léegi ma ñëw. <laughs> wóyul coach bi wóyul coach bi. waaw non laaj coach bi dinaa moom maanaam lu tax ñu gëj laa gis. man maa ngi fi de. da nga bàyyi gëj a gis rek. da nga bàyyi lutte avec frappe. ah da nga bàyyi lutte avec frappe. dama amul combat rek. da nga amul combat wala nga bëggul bëre. dama amul combat adversaire laa amul. koo bëgg bëre. man ñëpp. comme ñan. Ah, sama adversaire yi bëri nañ fi. ma ñaar li ma ñaar. yow xam nga leen. yow xaw ma leen. jarul may lim. ah. bu ma limee rek. te damay yow laa yow ñan nga bëgg a maa la laaj yow nga bëgg a bëri waaw. sama adversaire yi am pagaay lañ ci def. Hmm. waaw. léegi lu tax ñu bañ laa jël. ah loolu xanaa nga ma bàyyi la moom nga dem laaj leen. Hmm. mais yaa ngi ci entraînement yi. toujours kay. Hmm. toujours prêt. toujours prêt de. <laughs> mais ñu gis na tey fii Jàmbaar Wrestling Academy. waaw ah. fi nga entraîné wala fi nga nekk léegi. dama fi ñëw temps en temps rek. parce que sama sama écrit la ko wax. naka gise gisee entraînement ñu fi nekk samay doo samay doomu ndey lañ. Mhm. ñoo bokk parcelle bi samay gaañ lañ. naka nga gisee entraînement bi jaar na yoon. waaw bu baax kay bu baax a mhm. yow gisal nga sa bopp jarul laajte. yow Agogo kan kan am na am na booy boo doon laaj démb de. xamatuma kan la de naan ma sama ak non tey tey tey booy booy sa adversaire booy Sadio booy jël nee na mën fuuf moo mën fuuf mooy nee na mayoo ma saas. mayoo too koy barki yàlla mayoo ma saas. koy bëggal sama morom. comme kan. Modou Lo oh!

dama dama sama nawle bi jàpp ci jàpp ci waay